école bi nga xamanteni ni fofu foofu la ndaw ñi ba nopi daal di leen di dugal ci ay bërëb ñu daal di Cheikh Ahmadou Bamba Mboup moom moo ko di initié mbokk yi xale yi nga xamanteni ne sérigraphie la bëgg mën nañ leen defal formation durée 15 jours informatique bureautique itamit am pour une durée 2 mois formation certifiée agriculture élevage informatique entrepreneuriat restauration sérigraphie mécanique auto gestion de caisse infographie maraîchage am ci durée 3 mois 1 mois 15 jours 5 jours Si li ci une attestation boo xamante ni délivré. délivrer bis boo paree sa formation ba pare faire ñu daal di lay teg attention nombre de places limitées ouverture des inscriptions c'est à partir du 13 février mu mel ni tàmbali na ñu ngi unité 22 villa numéro 244 téléphone 33 857 50 19 70 77 460 37 37 institut bi dimbali ndaw li ngir ñu am xëy. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that i will never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. ñu gis ko ci Yémen président ba gis ngeen fa mu mujjee ñu gis ko tey ci Syrie ne fa muy mujj aussi du neex. njiitu au Syrie ñu gis ko ci Sénégal ndax mois de juillet juin l'université, ñu weesu dafa taxaw ne li du fi amé. Duñu nangu. ñuy jël suñu deuxième tour de nangu ñuy fal ab président de la république bo xamné ni gi yépp mom lañ ko jox sañ-sañ bi yépp mom lañ ko jox ko xamné même bu amee 25% des électeurs mën nañ ko fal au premier tour lolu du fi amé. dem ci député yi wax leen ko Tay ji non lañ taxawé ci conseil constitutionnel né duñu nangu. ñu jalgati charte réew mi lu nangu président bu def ñaari mandat te constitution bi yemale ko foofu naan day am buña duñu ko nangu kon askan wi léegi dafa nanguwaat boppam 2011 nag mel na nu loolu ci àdduna bi yëpp d'ailleurs prix Nobel de la paix sax boo koy xool dañ ko jox askan yi ah, ci ni ñu moomaatee seen bopp mouvement populaire yooyu ba ci Amérique maanaam ci kuréel yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci wàllu koom-koom lu mel ni Wall Street ah. nit ñi bañ Euh, li nga xam ne noonu la àdduna bi doxee tey kon 2011 atum mbañ la woon te 2012 xamuñ nag lu mu ñu indil waaye daal ñu ngi ñaan yàlla sutura am fi mais surtout vraiment pouvoir bi dem jàmm mën a am ci senegal ñu mën a joxaat nit ñi yaakaar ñu am dundin bu gën bi ñuy dundee tey waaw. Giar kontaanee jox cër mbokk àdduna Giar kontaanee jox cër mbokk internaute c'est le bon TV maa ngi leen di nuyu di leen giar. di leen baalu ak yéen ñëpp ah. donc di nuyu fépp fu waay nekk patriote fu waay mën a nekk mais maa ngi nuyu waaye Montréal dafa naa Montréal am na benn patriote bu may commentaire chaque jour di wax ni maa ngi bëgge eh, pour may bëgge waa Montréal Montréal la maa ngi lay bëgge patriote bi di bëgge ñiy commentaire yëpp maa ngi lire seen commentaire yi yéen ñëpp te mu ngi am solo eh, di wax ni rek c'est le bon seen yëf la ngeen gën si jàpp gëna abonné gëna partager partagé ndax euh, dëgg rek lañ fiy wax ah, ak conscientiser waa tey nag euh, dama bëgg ñu def benn kii bu gàtt rek gars yi nag nee nañ vidéo yi gudd ci actualité Sénégal comme d'habitude ah euh, Macky Sall démb wax na, démb wax na di menacer quoi comme comme d'habitude ngay déglu Macky Sall muy wax doo sentir benn yoon ni benn njiitu réew un chef de l'État maanaam euh, euh, danga naan woyu Souleymane fay boobu noonu bi mu naan euh, li ma doon ak ki ma doon ak li may nuru dama leen di jaawale ba tey li ma doon ak ki ma doon ak li may nuru dama leen di jaawale ba tey Macky dama jàppaar ni dama jàpp ni li mu doon ak ki mu doon ak li muy nuru da leen di jaawale parce que saa yoo ko dégloo muy wax tu comprends pas kii lan la bëgg a wax ak kii ki wax kan la ak lan moo tax muy wax lii muy wax en tant que ki ne moom mooy le chef de l'État le père de la nation le père de la nation léegi nag da ngeen koy xool rek ci seen kër yi bu demee ba sa papa heure buy wax day menacer. loolu moo lay wan ne amul responsabilité du kilifa kilifa du menacé kilifa du nappaate parce que kuy nappaate mooy koo xam ne amoo dogal ci moom mënuloo ko dara nga kay napp mais koo xam ne da nga am dogal ci moom nekk le chef de l'État nekk président de la république njaboote ñépp sooy wax di di nappe di mel ni un opposant buy wax te discours am yépp léegi wu la nappe wan na ni man faalew ma leen mais Macky Sall ñun euh, maanaam du ñun ngay won sa njàmbaar léegi nag Sénégal lu ñuy tuddee état fort un état fort et un état xawma xawma défendre la république léegi dama leen bëgg a comprendre loolu ñoom la ñuy jàppee état bu fort loolu mooy état bu faible li ñu jàppee état bu faible mooy état bu fort parce que damay dégg seen wax yëpp un état fort xam nga on défend la république force restera à la loi léegi nga gis Macron France moom mooy état fort parce que état njàmbaaram du ko won peuple am état bu fort président am sa wextan bokk sa wextan sa wextan sa askan waruñu koo xam sa sa sa waa kër sax sa njaboot sax war nañoo xam sa wextan parce que yaa leen njaboote yaa leen yilif yaa leen moom ginnaaw yàlla yaay yaay seen kilifa ñooñu war nañoo yëg sa waxtaan waaye boo demee ba nekk un chef de l'état président de la république ñu dénk la yow ñi la dénk waruñoo xam sa waxtaan su dee yow tu es conscient que ni dañ laa dénk Macron nag wala président occidentaux yi ñoom heureusement ils ont compris ay nante lañ ñoom xam nañu ni dañ leen a dénk duñu ridiculiser seen bopp di jéem napp ñi leen dénk état fort mooy état buy naxante ak peuple am état bu fort mooy état buy obéir mooy li buuru màkk ba defoon woo askanam bañ ñëw mu ne lan ngeen soxla lan ngeen bëgg ma defal leen ko ndax gis na euh, mm, euh, Égypte tàkk na gis na Tunisie tàkk na muy woo askanam pour laaj leen nga dem Maroc ñu buur ba def lu référendum ne askan bi yéen yéen te kooku buur la de. ne yéen yéenay xool naka ngeen di doxalee seen réew dem leen ngeen def seeni i loi ngeen teg seen gouvernement te ñooñu ay buur lañ un président qui est élu démocratiquement appelé à menacer son peuple heure buy wax ngay gis ni day nappaate day menacer président boobu il est faible parce que sa wextaan sa sa askan waruñu ko xam en tant que njiitu réew encore une fois te Macky wexoo barki Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba wexoo tàngoo metti woo tapet nga dudus tus doo ña billahi wallahi tallahi do dërëm do dara lolu moy woné ni ngay napaté moy woné ni do dara moy woné ni amu fit Macky Sall billahi wallahi tallahi amoo fit ñame wo xamoo sa bop lolu moo tax nga ñuy napp ñun boy kenn mënul nap peuple am muy dégg nak ay nafiq Sénégal dañuy wax benn wax boo xam day génne sama xol bi day xëtt sama xol bi dañuy wax ni nguur kenn du xeex ak moom loolu daf ma metti daf ma metti te ay jullit ñoo koy wax ay naafiq yoo xam ne jàng nañ histoire sax au moins ku jàng tuuti histoire gis nguur yi yi jéem a noot seen peuple yëpp fi ñu mujjee moom li ñu war a wax kay mooy peuple kenn du ko noot li ñu war a wax kay mooy peuple kenn du xeex ak moom mais nguur kenn du xeex ak moom te ñu koy wax dañ naan jàng nañ quoi. boo jàngoo sax xanaa xam nga histoire benn histoire bu gën a siiw muy nguur firwaa firaawoon ak yonent yàlla Moussa waaye léegi firaawoon kan moo ko gënoon a rëy nguur kan moo ko gënoon a yoro nguur ba yàlla wax ko ci alxuraan nangul ko nguuram nangul ko puissance am Moussa mi yaroo këram nekk xale bu ndaw mu yar ko ci loxoom moo moo ko labal ci géej daaneel nguuram xeex ak moom daaneel nguuram. ak yeneen exemple yeneen yeneen i exemple yoo xam ni ay nguur ay waxuma sax ay république ay ay président mais ay buur ay buur laa buur yoo xam ni dañ leen a daaneel seen askan wala ñenn ñu yàlla yónni ci ñoom ñoo leen daaneel waxuma la nag koo xam ne dañ koo fal mu am mandat mu am app du buur du yonant ñu naan nguur kenn du xeex ak moom damay rus su may dégg ñu naan nguur di may doole waa léegi kon léegi ñooñu di wax nguur kenn du xeex ak moom léegi nguur lan la ñuy def ak moom dangay nangu tëdd jaaxaat mu di la dóor mu di la toroxal mu war a def benn mandat dë mandats ne man damay dolli far force dama leen di jaay doole dama leen di xiifal damay jaay seen suuf damay jox ko tubaab yi dama leen di def esclave seen biir dëkk dama leen di noot dama leen di toroxal. mais yéen amoo leen fitu xeex ak man lee makor tubaab yi di def lan la benn bakkan lañ rey ñu génn di xeex ak nguur gi ba nguur gi reculer Macron génn di def discours yu dal loolu mooy président de la république loolu moom mooy modèle démocratique loolu mooy pays bu am pays de droit loolu mooy état de droit mooy état buy buy sàmmonte charte ak loi yi réew mi jël population bi def ko priorité koku moy état bu fort mais ñeen Sénégal Afrique liñ jappé état bu fort moy état bu maté peuple am ñoom loolu lañ jappé état bu fort ah. état bu ray askanam état bu nap as motax tax Macky Sall di nappee yeen ñu ni ñi naan Macky Sall lan motax muy muy nap loolu la parce que dañ leen lo que ni pour nga di nek dictateur sax ci nguur il faut ngay ngay menacer il faut ngay nappaate il faut ngay toroxal il faut ngay xifal système machiavel boobu la ñuy demee mais tubaab bi mënuñu demee loolu parce que seen république dañoo préparé loolu ñoom seen république yi dañoo teg charte yoo xam ne ay garde fou yoo xam ne amul kenn ku ko sañ a dépassé muy président foo mënti doon mënoo ko tëb te ñemewoo sax Macron fi mu toll nii ñemewul deuxième mandat am bi jeex mu taxaw naan damay dem conseil constitutionnel parce que xalaatu ko téeméeri am na ku ko doon wax fan yee ci ay ay ay ay àndandoom dootu ko defate léegi nag loolu moom mooy état bu fort mooy état boo xam ni euh, dafay naxante ak askanam dafay maslaa ak askanam yéen naa yi naan nguur kenn du xeex ak moom askan la nguur war warta xeexal ndax amul benn président wala benn buur bu musa noot askanam toloxal leen am ci ndam bu musa jàkkaarlook askanam défier leen am ci ndam kon waxu naafiq weesuwul ay nit yu jàng yu xam tuuti histoire taxaw di wax ni nguur kenn du xeex ak moom bu doon sax ci nguur lañu nekk sax dañoo war a xeex ndax gis nañ ñu fi xeex ba daaneel nguur Firawna exemple la ci kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni nii ay euh, somnifère la ay calmant la yu ñuy jox nit yi di leen pour mën leen di noot mooy nguur kenn du xeex ak moom parce que Macky Sall ne nous respecte pas est-ce que xam ngeen ne Macky Sall dafa woote guerre civile nañ nañ déglu Macky Sall la li mu wax ce qui li mu gën a li lu garaaw li mu wax nga xam ne tey maanaam dafa démissionné maanaam amatul amatul état te yàgg naa leen wax Sénégal du république amatul état Macky Sall dafa démissionné ñu déglu ko. aux citoyens pour protéger les biens, protéger les personnes dans vos localités. bu len nangu ay nit di ñew seen gox di ko yàq loolu di ñàkk fay dal nit du nangu bàyyi dëkkam ñëw sa dëkk di ko yàq au nom de quoi donc ça vraiment man naa ko wax bu ñu yeboon ñu ne dañuy dem xaw ma seppee xaw ma naka lañ dund yëpp caaxaan yooyu na ngeen fagaru ñàkk seeni gox waa léegi ngeen jàpp ni état ak président ak nguur bu ñuy wax ndax dina waxee nii léegi nag sant yàlla la ak constat buñ ciy def mooy force restera à fii ku fi yëngatu dinañ la takk sànni la biir géej du mujj fenn dinañ leen rey dinañ leen toroxal ah euh, ñoo moom réew mi ah euh, force de défense et de sécurité ñoom dañoo xarañ dañuy def seen liggéey normal ah fii ku fi yëngu li fi xewoon dootu fi xewaat mujj gi mu naan yéen peuple bi bu leen nangu kenn ñëw seen jóge dëkkam ñëw sa dëkk di ko yàq li nga Macky Sall fi muy waxee Macky Sall mu ngi def appel à l'insurrection Macky Sall mu ngi def appel à la violence te am na ñu bëri patriote yu bari ñu tëdd ci kaso bi loolu lañ leen fa tëjee xam nga Oustaz sa Seck lan la wax Sonko buñ ko jàppee réew mi tàkk ñu jàpp tëj ci kaso bi Macky Sall nee na kon mu leer na ni ñiy génnoon di wax ci mbiti naan ay dëkk bi na tàkk dañuy rey nit yi dañ leen di duma Macky Sall moo leen ko wax loolu ak génn leen jënd jël nervi yi Macky Sall la ko jël parce que Macky Sall moo ne yéen peuple bi képp ku ñëw si seen koñ bëgg ko yàq génn leen ngeen jàmmaar la ak moom yenn yi ñàkk fayda la loolu dèjà mu ngi waate xeex dëkk ak dëkk parce que nee na nit warta jóge dëkkam dañ ngeen fi mu bëgg a waxee nit warta juge dëkkam ñëw sa dëkk di ko yàq nit warta jóge dëkkam ñëw sa dëkk ko yàq kon Macky Sall mu ngi woote xeex dëkk dëkk gaynde xeex Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk Macky Sall il fait appel aux guerres civiles bëgg na askan bi xeex seen biir parce que tële na dafa met bëgg a mettre ce pays en chaos Macky Sall il veut dafa bëgg a des ci pouvoir bi bëgg a jaxase askan bi ñu xeex seen biir dëkk bi am instabilité mu woote état d'urgence ñu repousser les élections Macky Sall loolu du fi am. dinañ la sepp duma la ñun duñu xex suñu biir ñun askan bi heureusement ba askan wi xawma nak wa waa APR ngay waxal waaye wa APR mom ñëmé wuñu génn nan dañuy xex ak nit ñi loolu mom xam nañ ko te ñun duñu xex suñu biir ndax ñun xam nañ ci bi nga bëgg ñun duñu xex suñu biir wa Louga duñu xex ak wa Touba wa Touba duñu xex ak wa wa Tivaouane wa Tivaouane duñu xex ak wa casama wa casama duñu xex ak wa Dakar Macky Sall peuple sénégalais nga amal affaire am nga fit ñeme nga yaa ngi naan ay dañuy wax nil nëppa la ñuy déparé ay duñ déparé fee duñ départ Macky Sall am nga fit ñeme nga jàkkaarloo ak askan bi ne leen dangay ngay def troisième mandat ñun loolu rek lañ lay ñaan bul bul xalaat kuy toj fii wala kuy yàq fee wala kuy yow jàkkaarloo ñun rek lundi nga ne ñu kon man Macky Sall damay def troisième mandat dama leen a naxoon en 2016. ndax kilifa diine yi dama leen naxoon yéen ñëpp maa leen ëpp xel maay góor biir Sénégal dama leen a naxoon jël seeni milliards def ko ci ay élection ne coowal mandat laa bëgg mu jeex Sénégal ñoom Mamadou Diop yi deewoon ñoom ñëpp ñoo xam maa leen naxoon te maay seen bàyyi damay def troisième mandat Macky Sall ñun loolu la ñuy xaar li ngay wax ni yëpp ay détails la am nga fit ñeme nga. ni yéen moom réew mi yéen a am majorité say élus locaux nga toogal élus locaux yu ñoo moom réew mi yéen yéen a gagné élection yépp yéen a fi mën anyway on t'écoute kon Sénégal nekkatul ci ay loxo bu demee ba président de la république def appel à l'insurrection appel à la guerre civile te dañ doon wax force restera à la loi nit warta fajal boppam maa ngi ko dégg ci biir ay waxam muy fen nan maire yi dañ leen war respecter parce que askan moo leen fal am na ñu bëri fi ñuy wax kenn falu leen ils ne sont pas des élus maire ak député dañ leen war a respecter da nga jàpp ay député tëj ci kaso bi sans dindi seen immunité parlementaire mars 2021 sa police ak sa gendarmerie dem di jëli ji Ousmane Sonko te levewul immunité parlementaire am barki dem nga jàpp Cheikh Thioro Mbacké député Serigne tëj ci biir kaso bi Ousmane Sonko ngi ne di maire maire de la ville de Ziguinchor nga tëj ko cité kër góor gi sans ordonnance ju juge sans loi kii dafa kii tekki kii dafa man a man xaw ma ban moo laay traité Macky Sall ngir foowam ak ñàkk nekk nitam dajale ay ay marionnette ñu wër ko lu mu wax ñu tàcc lu mu wax ñu ree ay nit yoo xam ne duñ la raisonné ngay wax ay waxu dof yow naaféq yi lu mu naaféq moo ma metti xolam nee na moom dafa respecté ay maire dafa respecté député te ci nguuru Macky Sall lañ toroxal ay député bogo bogo leen ak seeni écharpe dugal ci kaso Ahmed Aidara maam jaara faam et cetera moo tax ay Khalifa Sall ay Barthélemy Dias ñooñu duma leen baal ñooñu ñoo raw dëmm Khalifa Sall Barthélemy Dias ñooñu ñoo raw dëmm ñooñu baaxuñu ñooñu ñoo raw sax Macky Sall billaahi wallaahi tallaahi ñooñu ñoo bon Barthélemy Dias Khalifa Sall ñoo gën a yées ndax lii ñuy dund yëpp ñoom la ñoo jaxase liste yi Sonko nekkul député di liggéeyal Macky Sall nekk biir yi ba tey jii tey Sonko tey ñu koy toroxal nii te Sonko bu nekkoon député xam nga ni Macky Sall mënu koo def yii mu koy def mais lépp c'était planifié mais munoo leen fexe fexe fexe ba sénégalais duñ ko libéré Sénégal duñ ko libéré dañ koy libéré par force billaahi wallaahi watalaay da ngeen amul baatin rek. mais saay Macky Sall na na askan bi génn xeex seen biir message boobu nag day am lu muy jàngat mënatuma ci dara la léegi xaaral ma boole leen ñu xeex seen biir ma mettre pays dëkk bi en instabilité en chaos ñu ne askan bay xeex seen biir déedéet xeexuñu suñu biir ñun yow la ñuy xeexal comprendre nañ la bu yàgg doom yaay. yaa ngi jéem a jaxase xeeta xeet jéem a jaxate dëkk ak dëkk jéem a jaxase ñun xeexuñu suñu biir amuñu benn problème ñun amuñu benn problème waaw ñun askanu Sénégal amuñu benn problème suñu biir ñun yow yaay suñu problème te dinañ la seppi sànni fële yaa ñi nga àndal on est plus intelligent que ñoo la ëpp fit tam Macky Sall tàppet nga te sénégalais yëpp xam nañ ni tàppet nga bàyyi li ñeme ñeme lu ngay def ak toog di jëm mel ni opposant buy wax yow tekki woo dara toog yow en tant que président heure booy wax tu menaces mais Macky Sall tu es un politicien Macky Sall politicien bi mu doon moo ëpp Macky Sall tu dois être un chef de l' état un démocrate kuy toog di wax avec. Macky Sall heure bi nga waroon toll ci tàggatoog sénégalais yi baanam teg ñoom ak Macky Sall ngay menacé sénégalais yi 12 ans Macky Sall nga nii menacé munuñu la munuñoo munoo munuñu laa ragal arrêté 12 ans yaa ngi ñuy napp 12 ans yaa ngi ñuy napp munuñu laa ragal loo teg ñu teggi condamné Sonko 2 ans ñeme woo koo jëli ñu bëgg a wax trois troisième mandat 2019 ba tey munoo koo wax Macky Sall ñun ñoo la napp ñun nappoo ñu te doo ñu mës napp. ñuy daan ay force reste mujj naan askan bi génn leen xeexal seen bopp yéen gàcce gi sax nga ñëw sëlamu leen yéen a ñeme gàcce man ñi nekk Sénégal te lii mettiwu leen dama xamul xolu lan lañ yor comportement bi Macky Sall amee biir Sénégal as kilifa yeeg ñëpp noppi di ko seetaan lii mettiwu leen ñii ñooy ay làpptoo doon ay doomu dak Sénégal moo bëri ay kilif ñu ngi woowee kilifa te duñu dara lii mën ngaa nekk Sénégal nga doon tekki fa dara Macky Sall japp askan bi di len nap di def appel au meurtre appel à l'insurrection di nap askan bi di tax salfaañi justice bi di tek ñu deful dara nga nop bi Sénégal am touti cadeau ni ci miig nga di yow gor nga waaye yow jaa ngeen jëf way ma ngi leen di bëgg nak bu baax di len share di kontaan bu baax ci and bi ngeen and ak ñun jaa ngeen jëf